madame Diagne donc euh, nekkoon ki ma jàngal fii ci classe bi ma nekk fii mooy classe u cm ma di ko sant di ko gërëm bu baax euh, li tax nag ñu ñëw fii mooy dafa nekk suñu première sortie première sortie pour visiter école école sénégalaise ni mu mel ni mu bindoo lan moo ci baax lan moo ci baaxul bi ma ñëwee fii euh, gis naa li ma neex gis naa jardin scolaire boo xam ni xale yi ñu ngi ciy góorgóorlu Euh, di ci bay maa ngi encouragé enseignants yi di encouragé le directeur d'école activité yu mel noonu ñu gën ko intensifier jub jubal jubanti président di ko wax waa fi mu gënee yomb ak fi mu gënee baax moo ci xale yi kon damay ñaax enseignants yi ak maîtres yi ñu góor góorlu ci ñu xam ni ils sont au cœur de ce grand projet di wax nag ni am loo xam ni maa ngi koy regretter mooy école bu mel nii amul ba léegi même benn centre informatique te wax dëgg yàlla transformation bi ñu wax euh, ak président la république li mu insisté ci digital bi ak transformation numérique école yi dañ ko war a am très moo tax ma ñaan directeur mu may ma salle bi salle de classe bii moo doon suma salle de classe bi ma nekkee CM2 euh, ñu def ko transformé ko mu nekk centre informatique. ma bëggoon tamit ñaan directeur d'école bi su dee mën na ma ko may. mooy salle de classe bii ñu tuddeel ma ko Sofietu Mbodj madame Diagne